ses clients, ses partenaires et collaborateurs du démarrage des activités et de l'ouverture de son agence principale à la cité Kergorgi du bureau régional de Kaolac, Ziguinchor et Saint-Louis. Dans le cadre de son développement international, le groupe Star Times, conscient du potentiel existant et des nombreux atouts au Sénégal s'est donné des services d'audiovisuel aux Sénégalais, à l'instar des 29 continent où notre groupe est implanté. StarTimes est un groupe international de médias la société mère Il a à son actif plusieurs réalisations, notamment sur le continent africain, qui constitue son marché de prédilection et où il allie les offres commerciales et les actions sociales d'envergure. Le groupe opère dans le secteur de l'audiovisuel avec une valeur ajoutée incomparable en termes de modernité, de rapport qualité-prix, bref, les offres compétitives, notamment sur le continent À la suite des autres pays au Sénégal le projet à la TV satellite pour 10 000 villages africains. Le dit projet enregistre aujourd'hui un taux d'exécution le niveau de satisfaction des bénéficiaires est très pour la suite et pour les projets sociaux à venir. Au niveau local, Star Times a mis en œuvre une politique qui favorise les emplois locaux. À ce jour, notre effectif ne compte pas moins de 50 employés permanents. Star Times a toujours eu comme l'objectif central de développer des partenariats gagnant-gagnant en intégrant le maximum de médias dans les offres proposées. Cette stratégie permet de valoriser davantage les acteurs locaux en favorisant en temps l'ouverture du continent à la Chine qui est à ce jour le premier partenaire de l'Afrique. L'ouverture de l'agence principale s'inscrit dans la dynamique d'une implantation durable. et consacre la volonté du groupe à offrir des, groupes de, des services de qualité et de se rapprocher au mieux de ses clients. La direction du groupe Star Times tend la main à l'ensemble des parties prenantes pour la mise en œuvre de synergies positives et d'actions communes. Je vous remercie. maaleykum mbokk yi fi teew ñu ngi leen di nuyu ku nekk sama tour Alioune Thiam la agent commercial ak Startimes comme ni ko madame Diallo waxee Startimes benn seetal média la boo xamante ni mu ngi installé au Sénégal en fait en réalité depuis 2018 tey nag dañu ñëwoon pour def suñu lancement officiel bon question yi ñu ko jot a laaj defe naa ni jot essayé na joxe ay réponses yu assez claires dañu dañuy doog a commencé en fait dañuy doog a commencé liggéey bi donc en ce moment li ñuy gën a soxal mooy focaliser wu ñun mais également focaliser wu ci besoin sénégalais maanaam lan lañu bëgg ñu offrir leen ko ci lañ gën a toog léegi nag en ce moment également yi nga xam moom la ñuy offrir moom la ñuy jox sénégalais yi am nañ ñetti bouquet yoo xamante ni benn bi mu ngi jar 4500 par mois nga am nga xay fay benn bi mu ngi jar 9000 francs par mois beneen mu ngi jar 12 12000 francs par mois waaye balaa ngaa yegg ci loolu boo bëggee am suñu abonnement maanaam da ngay jënd décodeur koy jaayee 2000 francs bu la ko jaayee ñeenti téeméer en fait léegi da ngay jënd bouquet bi ñu naan bouquet extractant muy jar junni ak ñeenti téeméer loolu boo ko boolee mu nekk 14000 14000 yooyu moom ngay fay pour mën a am suñu chaîne ñu teg yëpp te boo ko amee da ngay am tout extractant bi nga xam te ne di am téeméeri chaîne ak juróom fukk ak juróom-ñaari chaîne di ko daal nga mën a am mën a xam lépp lu ñuy def bu weesoo loolu bu weer bi deewee yaay xool li ngay tànn bu la nga tànn bouquet bi ñu naan smart bi jar 4500 bu la neexee nga tànn bouquet bi ñu naan euh, super muy francs bu la neexee it nga tànn ci bouquet bi ñu naan tout extra time bu ñëwaatee ci projet bi nga xam moom mooy projet 10 000 villages africains yi projet 10 000 villages africains yi projet la boo xam ne dañu ko def pour permettre ñi nga xam ne ñoom ñooy villages yi ñu dëkk fu gën a sori Sénégal mbaa fu gën a sori ci Afrique ñu accès la TV satellite gannaaw bañ leen mayee ba pare waaw maanaam décodeur lépp ñu may leen ko gratuitement yoo xam ne dañuy seetaan te duñu fay dara bu weesoo loolu neen créer benn bouquet spécial boo xamante ni mu la ñuy woowee Nova mu toll si ñetti téeméer kese maanaam ki dëkk ci village bi bu amee ci offre bi bu toogee 3 mois seetaan bu ko neexee mu jël ñetti téeméer fay Star Times pour mën a continuer seetaan dina seetaan lu toll ci fanweeri chaîne ak ñett bu weesoo loolu tamit am na centre d'appel bi fi nekk boo xamante ni ku ñu woo di nga ñu a jot heure boo ñu wooyee ñu ngi fii pour clients yi pour mën leen jàppale mais également pour mën leen wan ci wàllum fédération aussi bu ñu ci delloo tuuti instant time ubbeeku na pour ñëpp on est là pour tra dañ fi nekk pour liggéey ñëpp donc kon képp koo xamante ni rek am nga projet instant time ubbi na la tànnal la ay loxoom pour boo ñu ni mën a liggéey incha allah donc ñu leen di gërëm di leen sant village yi mu ngi toll si junni euh, Sénégal mu Sénégal ci Sénégal tey jii maye nañ ñu toll si juróom-benn téeméer ak village ak fanweer ci Sénégal buñ ko boolee ci Afrique war na toll ci Euh, dix mille cent douze villages maanaam ci ci ñaar fukki réew ak ñett ci Afrique Sénégal ma bamtuwaat que am na ci juróom-benn téeméeri village ak ak fanweer ok chaîne actuellement am na ñu toll ci téeméeri chaîne ak juróom fukk ak juróom-ñaar moom la ñu am ci bouquet bi ñuy woowee tout Star Time maanaam lépp Star Time concurrence bi comme ñu ko sama collègue madame Diallo waxee en ce moment instant mu ngi liggéey en interne c'est stratégie stratégie yooyu muy teg nag bokk na ci tey lancement officiel bi ñu def war a wàcc tali war a def caravane en ce ñu ngi liggéey en interne concurrence boobu pour ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax a baax waaye nag ñun li ñu gën soxal mooy suñu bopp xool nu ñu liggéey en interne ba mën a convaincre sénégalais par rapport ak série sénégalais a tegee pourquoi pas ay projets yoo xam ne dañu mën a permettre série sénégalais ñu mën ci gis seen bopp mën a seeraan mën a am accès yi Star Times waaye tamit pourquoi pas des partenariats sponsoring lépp daal mu ngi suñu kanam te li ci kanam daal raw li jët comme ni ko wolof di waxee ba bamtuwaat ko en fait tey lancement officiel dañoo def ñu naan promotion boo xam te naan décodeur à zéro maanaam da ngay am décodeur bi te doo fay dara maanaam doo fay décodeur bi décodeur bi jar ngeen téeméer waaye bouquet bi nga naan bi ñu naan bouquet Star Times dong ngay fay mu toll si junni ak ñeenti téeméer maanaam tey jii ci téeméeri clients yi njëkk ci Star ku fi ñëw dañ lañ la jaay bouquet bi nga xam ne ak fépp foo dem ci Sénégal lañ la jaay euh, suñu décodeur tey jii ñu jaayee la ko junni ak ñeent téeméer may la décodeur may la parabole may la lépp loolu moo doon lu ñu ci waroon yokku waaw mooy naan décodeur à zéro franc waa ñu leen di sant di leen gërëm ci teewaay bi jërë ngeen jëf